salaatu llazi fi kulli shahrin wa fi safar wasala allahu wasallama ala xaatimi alanbiyaai walmursalin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum wasanna bi sunnatihim ila yowmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Mouhamed Al Bachir ñu ngi lay nuyu di la siyaara doon na jaadu lool doon na baax lool tey ñu daje joxante loxo safuwante bokk xalaat bokk kàddu di yëkkatindoo di tëlalandoo waaye nag ñi sant yàlla sant yàlla gi mooy fii ci tuubaa yàlla may na xaadima rasul cër bu rëy bu màgg ci lislaam boo xam ne lislaam moo ko seede tey cër bi mooy mboolem ñi ngànk diina ci senegaal Sénégal ñu daje Touba loolu cërul la boobu yàlla jagleel xaadima rasulullahi cër boobu nag e, ñu ngi koy sante yàlla te ñaan yàlla na dolleeku waaye ñu ngi lay yëgal ne mbooleem kilifa yi ñi teew ak ñi yónni ak ñi bëggoon a teew te mënuñoo teew ñëpp seen xol yegg si na Tuubaa tey ñëpp seen cofee la ngi Tuubaa tey ñëpp itam seen yéene ngi Tuubaa ndax xam nañ ne lenn rekk lañ bokk muy lislaam bi xam nañ ne lenn rekk lañ bokk muy yonent yàlla muhammad xam nañ ne lenn rekk lañ bokk muy alquran xam nañ ne lenn rekk lañ bokk muy alqiblatu mooy alkaabatul musharraf bon ñoo bokk lépp ay nit nag bu leen yàlla boolee ñu bokk lépp tabaaraka laa sana xaaliqiina yàlla dogal seeni xol di gisee seeni jëmm di gisee cofeel dox seen diggante loolu yërmande yàlla la yàlla na yërmande jooju ko ñu ngi lay wax ne kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew te kenn ku nekk taxawee taxawaayu lislaam bu mat sëkk ca gox ba mu nekkee ci yar ci jàngale ci jubal kilifa yooyu ànd nañu tey joxaat sëriñ Muntaxa loxo ànd nañu tey joxaat sëñ Bas loxo ngir ñi bokk di yëkkatee ndoo di ndoo ndax loolu rekk mooy seen ndam loolu rekk mooy seen sag loolu rek it mooy seen dimbal ñu ngi lay wax Mbàkke ne lislaam soxla na lii lool ndax mooy sagam soxla na ko lool ndax mooy ndamam te bay ngeen ci waar wu yaatu liggéey ngeen ci liggéey bu rëy yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla jàppale leen ñu ngi ñaan ci barke bis bile ak borom bis bile mbooleem lu lislaam soxla te waa lislaam war ko koo jox te ñooñ lislaam yi yéene ko yal na yàlla kattanal leen bañ man ko yan na yàlla kattanal leen ba loolee lislaam soxla ñu mën ko koo jox ci anam bi mu gën a rafete ñu ngi sant yàlla bu baax di dollewaat siyaara di dolleewaat nuyoo akub cant ci alxalifa cheikh mahamadul muntaka yàlla na fi yàlla na ko yàlla yàggal tam wér ak mboolem ay rakam ak mboolem njaboot gi waaye ñu ngi lay wax ne sëñ Basir rafetlu nañ taxawaay bi lool ci kër gi rafetlu nañ liggéey bi lool ci kër gi yaakaar ji kër gi am ci yow yàlla na dolleeku yàlla bu yaakaar tas mukk xam naa nag yaa ngi ci yitti lool waaye du teere nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk yow waar wi ñu ngi lay gestu ñu ngi lay bàyyi xel ci boo ñu gisee ak boo ñu gisut ndax loolu rek mooy suñ sakk mooy suñ ndam saa boo réussir l'islam yëpp moo réussir waaye saa boo échecgee l'islam moo échec bon yàlla bul échec ñu ngi siyaare waa Touba yëpp di njaboot gi yëpp ci turu kilifa yëpp di ñaan yàlla yàlla na def daje bi muy daje bu barke te yàlla bu mu nekk suñu mujj ak daje ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp di leen wax kullu amin wa antum bi xeer wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu yëkkati kàddu dalal leen ci turu sëriñ bi. alhamdulilahi wa kafa wassalaamu ala ibaadi ala ibaadihi alladina stafa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sunu bokk yu tedd yi fi teew di mboolem këri diine yi. ñu ngi leen di gën a rafete gën a tedde di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nga xam ne mooy kilifa yoonu murid di borom liggéey bi dañu yëkkati suñu kàddu di leen siyaare di leen dalal jàmm ci bis bi nga xam ne yéen ak moom yéen a bokk te waneeti ngeen ko ci anam goo xam ne gën naa rafet ndax kat waxtu yi ñëpp xam nañ ni waxtu xat la ba tax na daanaka sax buñ leen gisutoon itam dogal nañ leen ngànt ndax xam ne ñëpp am ngànt ndax waxtu yi fi mu toll waaye kon nag day wane rek ne commencé li gisadil waaxid rek moo am ci suñu diggante génn isastaka minhum udwan tadaa tadaa lahu shairu al jasadi bi sahari wal huma wal huma ni ko xumte bi ñu wax léegi kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne seenu cant ak seenu koy amu ko amu ko te lottu na waaye yàlla suñu boroom mi nga xam ne nag moo santaane ci diggam ak yéen istajibu lillahi wa li rasul li waykum yàlla na leen fay yàlla na leen suñu borom bay fay bokku lislaam bi fay leen bokku garab bi di leen sant bu baax a baax nag di leen gërëm ci yéen ñëpp nag buñ ko mënoon dañuy tudd seen tur yéen ñëpp kenn far kenn mhm. waaye ndegam sëriñ Abdou Lahad Bousso tudd na ko ñëpp wax leeral seen tur ko mënoon itam ku ci ku ne ñun la fi fekk ñu gàttoon la ci turu sëriñ bi dalal la jàmm ba noppi teral la suñ bopp ndax loolu ngeen yeeyu ci ñun waaye ñun ñi nag génn ñu fenn moo tax ñu doyloo leen ci ngir xam ne bu ñu fi nekkul te ne fi mel na ne ñu kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. di leen xamal ni daal daa ngeen ko def muy rafet lool waaye waneeti ngeen ko ci anam goo xam ne kat juge nekk juge na ko kaw te bett na ko ndax ren moom dogaloon ñe dogaloon nañ leen ngànt ndax xam na ni waxtu xaj na te laaj ko waaye nag wane gi ngeen wan ne yéen moom yéen a ko bokk lu mu doon yéen a koy ànd moom yëg na ko tëree na ci moom. ñoo ko sëriñ Abdou Ahad waxee léegi rek ndax Seydina Issa wax nañ biñ may nett ne jokkoo nañu yow wax nañ kàddu yi nga wax lépp tam nag. kenn mënu ko fay ñu ngi sant kilifa yi tedd yi fi teew yëpp bàyyi benn tarixa nag tarixa yi fi teew yëpp ak seen i kilifa ak seen i njaboot ñu ngi leen di yóbbante nuyoo ak cant ak ngërëm ci seen kilifa yenn fi teewal di leen di leen ñaanal ñoom ñi si teew itam te di ko ànd ñu ànd bu jëpp te fas yéene ñun itam ni ko sëriñ bi santaane lu ngay nekkee ñu ànd ko yéen ndax loolu rek mooy doxal bokk islam bi wala uxuwatu islam yi ni ko suñu borom santaane ngeen ngeen di wuyu si ngeen di ñu leen di wuyu si loolu mooy li koy jëmmal kon sëriñ bi ngi di santaat di leen gërëm bu baax di ñaan itam ñu yàgg ànd liggéey bi te muy a rafet la sëriñ Tuubaa waxoon ñaar ñaar rek ci ne inna cheytaana lakum aduwwun fattaxizuuhu aduwwan ak innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum benn kon nañ xam ne suñu borom wusal nañu ci kon nag nañ xam ne benn noonu rek la muy muy cheytaane li ñuy lëkkale nag mooy inna moom moom noonu ixwatun kon nag ñu ngi ñaan ci yàlla suñ borom gën a dëgëral loolu ba dara man ko bañ yàq saa su xëyee di gën a rafet di gën a baax di gën a jekk ndax loolu kat mooy njariñu lislaam mooy njariñu réew mooy njariñu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bu may sëriñ Maodo mu ñëw nuyoo ak sëriñ bi dañ koo tuddoon léegi fekk mu mu jóg allah waaw sëñ bi ni mu ko daa waxee rek ñëpp ñu ànd bokk ñaan rek bu ko defee ne ñëpp tàllal sëñ bi nee na ñeen ñëpp ñu ànd bokk ñaan gi bisimilah min amin amin amin jërë ngeen jëf salaatu